wax Grégoire Ngom Grégoire maa ngi lay nuyu. wala fay bu baax Aïcha. naka suba si mbaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax a alhamdulilah ma bàyyi la nga daal di ñu wax li nga xamante ni moo gën a fës ci bopp xibaar yi te ci suba si. bokk na ci Aïcha lu jëm ba léegi ci wàllu ko diplomatie njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye négéey tey ji nag dana génn dënd ba Afrique loole bokk na ci nag la mu fas yéene def moom mooy bokk négéey ni ëllëg ci ab forum mondial boo xam ne daal ñu ngi ko wàllu ko souveraineté waaye tamit lépp jëm ci loole tey jop dañ mën a indi ci wàllug vaccination ginnaaw sa nag moom dana rek euh, bokk ci li nga xamante ne ni euh, moom mooy beneen nag ndaje bu ko fas yéene rek boole ak njiitu réew mu France di Emmanuel Macron foofa ponk yu bëri daañu ko jóg ci seen nag waxtaan. ca boru ko Burkina Faso mel ni rek pënd ba wuregul ginnaaw nag ab cong boo xam ne rek gis nañu ko ca boru ko Mansilla jàppale nag jamono ji. loola am na ci fi ñuy xaarandi rek conseil des ministres bu njëkk bu président Traoré waaye askan wa yemuñu fa ndaxte seetlu nañ rek ne nag gis nañ ñenn ci ay soldaaru ko Mali rawat na rek ay mercenaires ko Wagner ñoom ñëpp ñu daal di rek wàcc foofee ca biir Burkina Faso Aïcha Ponk Yangok jërëjëf Grégoire mbokk yi ñoo ko déggandoo Ponk Yangok boo leen taxirloo léegi léegi bu bàkk bi noppee ñu daal di koy faram-fàccee. gërëm leen sant leen bu baax a baax mbokk yi cànd bi ak kóolute gi président Bassirou Diomaye fay moom na génn tey jii dana génn dendu ba Afrique la nag bokk na ci rek la mu fas yéene wutali moom mooy réew ka France ngir bokk ca ndaje lu mag ñi nga xam ne ñu ngi ko jagleel wàllu ko souveraineté waaye tamit lay jëm ci coppite yi aw fas yéeneem rek ci wàllu ko vaccination ginnaaw ab invitation boo xam ne daal Gavi moom moo ko amal di alliance du vaccin et de ko duppe service yu présidence dal di rek xam ne nag ne ginnaaw si moom dana rek euh, daje ak njiitu réew mu France Emmanuel Macron bu ñu koy fàttali nag lii mooy euh, guléet ñuy seetlu rek ne njiitu réew mu Sénégal mu ngi génn dendub Afrique ba ñu ko sampe ci bopp réew mi ak léegi jàppaleen daal ne ëllëgug partenariat militaire bi tam bokk na ci ponk yi nga xamante ne nii daanaka daañu ko fa samp ne gi ni ay waxtaan ponk la buñ fa seen jëkkiwaat ci fii lekk suñu yeneen jotaayu xibaar addu jëmale rek ca la nga xam ne nag moom moo xew foofe ca booru Medina Gunaas ak fitna ga fa jib ca bésuk tabaski bile jàmb rek bi nga xamante ne nii rek jawriñ bi di Jean Baptiste Tine moom dem na fa ngir rek saytu yëf yi moom ma ngay woote nag ñu daal di amal jàmm ak dal waaye waxtaan na nag ak xalif bu Medina Gunaas jamono yi ñuy toll jàppaleen daal di. gendarmerie ba ñuy amal rek seen nag intervention am na ñoo xam ne jot nañ leen cee teg loxo ñi nga xam ne daal du tooñ nañ leen baaraamu jamono ji ñoom ñu nga rek ca garda bi foofee ca boru Kolda gouverneur bu région ba di Sayer Ndaw ak préfet bu Vélingara ñoom ñëpp ña nga foon rek ginnaaw coow li ba mu kalaatee. ba léegi rek mbokk yi àddu jëmale ci mbiru tabaski bile ci benn ak ponk ak ministère de l'urbanisme nga xamante nag ñoom ñu ngi woon rek taxaw ak SONAGED ngir amal ab nettoiement maanaam ab set setal ginnaaw si nag nga xamante rek jot nañu amal julli gile bu ñu koy xayma nag ay tonnes yu takku ci wàllu mbalit rek la ñu daal di rek dindi doonoone ñuy xooli la jëm ca boru mbëbës ñu teewlu reportage. mu di liggéey yoo xam ne ni ñoo ko tàmbali laata ñuy jub tabaski ngir rek setal Sénégal gi wërngal këpp jëriñ ji gàll wàllu urbanisme ay jumtukaay yu ama am solo la génnee ngir amal bile programme ànd si ak agent yu Sonaged. li nu muy mobiliser tey euh, toll toll na ci juróom benn junni vrai véritablement liggéeykat ndakaaru rek. ñeent junni liggéeykat la ñu mobiliser ci bés bi tey ngir ñu def liggéey bi ba ñu xayma la ñu yóbbu ay tonu déchets tonu mbalit ci Mbëbës toll na ci ñeenti junni ak juróomi téeméer mu nekk lu am solo liñ njëkkati ci ay oto toll na ci ñaari téeméer ba noppi véritablement wër maanaam rotation yi wër wër yi dem nañ ci lu tolloog ñetti téeméer rek euh, lu tolloog juróom juróomi téeméer mu nekk liggéey bu am am solo. Moussa Bala Fofana di ŋàññ anam gi nga xamee ni noonee la jaaykati xar bàyyee seen gannaaw bërëb yi ñu leen dalaloon si gox ya goxaan yi. xam nga pour xari yomb président la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre dañoo jël matuwaay yëpp. pour que ki jë ki jëlee xaram fële bëgg ko andi ci point de vente bi nga andi ko sans ay frais am ci ci transport bi ñu dindil la frais yi boo ko andee ci benn mairie ñu defaral la place ne la fii kenn du la fi laaj taxe duñ la laaj ndox duñ la laaj courant ba noppi sécurité bi daañu la ci dimbali kooku bu askan dajaloo defal la loolu yëpp ngir nga mën a jaay sa xar ci njëg gu yomb wallaay wallaay boo jaayee ba ba ngoon sa booy dem nettoyeel tuuti door a dem si lu soxal jafe-jafe yi si wàllu encombrement di anam gi ñuy lalee ak i tegi bagage si mbedd yi fii si Ndakaaru. incha allah daañ ci xool naka la ñuy def ba jafe-jafe yooyu euh, encombrement bi ni koy tuddee mooy maanaam càng càng-cangal yi ñuy <laughs> def ci dëkk bi nga xam ne loo bëgg a def càng foo mën a jaar doo yegg loo bëgg def du yegg loolu incha allah daañ ci taxaw. jëriñ gi di sant it. njaboot yi balaa rek ñuy sànni mbalit ci poubelle yi ñu fexe ba leen di segg lu ni mel de gën a rek yombal liggéey bi ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàll gi. jërëjëf Mbaye mbokk yi jàpp nag ne fileeg benn fan ci weeru juillet bi ñu jëm li nga xam ne naka moom mooy juut yi daañu ko seetlu. ci lu jëm ci liggéey yooyu ñuy amal ci xarlo yees yi maanaam nag beneen taxe la boo xam ne daal mu ngi tukkee jamono ji ci dogal bu jëm ci ministère des finances sawa jàllu ci leeram kilifa yu yees yi ñu ngi woyal pexe yi ngir mën a fexe ba keesu trésor public am xaalis ci noonee ñu dal di amal jéego yu am solo bokk na ci wàññi train de vie bu nguur gi amal recouvrement fiscal dal di taxawal tamit ay tax yu yees régime bi daal bàyyiwuñu dara ay groupe de presse ñu dal di bloqué seen i compte ndax ne fayuñu seen i dette ci fisc ba ginnaaw secteur des médias boobee wàllu numérique bi ñoom itam dañuy ñëw fay direction générale bi ëmb impôt ak domaine yi dina amal ab TVA di taxe ci valeur ajoutée ci yëngu-yëngu ñeel wàllu numérique bi loolee dinañu ko jëmmal ci benn fan ci weeru sulet bi ñu jëm dinañu ca bokk ñu nga xam ne dañuy jaay bien ak service jaarale ko ci ay réseau informatique wala électronique wala ay plateforme yoo xam ne dañu fay amal ay transaction dox ci diggante fournisseur ak client nga dal di télécharger wala nga fësal musique film wala ay faux en ligne dal di tamit mën a denc ak di mën a traiter ay données jaarale ko ci cloud ak nu ñuy yoree lii di base de données loolee yëpp dafay am TVA waaye tamit jàng ak njàngale mi ñuy amalee en ligne moo xam formation à distance wala sax wala sax nga amal hébergement yoo xam ne contenu bi dañu koy def en ligne moo xam site web ay image wala sax ay texte boobu les mesures nga xam ne joriñ bi ñu dénk wàllu gaf ak réew mi moom moo ko bëgg a amal bàyyiwul fournisseurs yi bàyyeekoo biti réew wala ay plateforme yu ni mel note administrative bi di ci yokku ne taxe bu yees koy dal di eh, tënk ci koppar yi nga xam ne plateforme bi da koy am maanaam chiffre d'affaires am TVA boobee nag ci Sénégal ci téeméer boo jël yegg na ci fukk ak juróom-ñett yi waaye secteur muy hôtellerie ak restauration ñoom dañu leen ko wàññil ci téeméer boo jël fukk yi rek la ñuy joxe lu ni mel ba mbas mi Covid 19 dooree ba tey jii. ñaaddu jëmale ci xibaaru biti réew loolee ca tënk la ca baruka Burkina Faso ba ñu seetloo do congu kaman si la li amoon na fukki fa ak benn ci weeru juin boobaak léegi daal dafa mel ni pënd ba wuregul ca boobeleek réew bu ñu koy xayma soldat malien ak i mercenaires russe ñu Wagner noonu daal la ñu daal di seet ne gis nañ leen ca baruka dugg boobaak léegi amul nag benn communication maanaam benn leeral boo xam ne daal kilifa yi jot nañu ko ca def loole nag nekk loo xamante ni daal jur na coow lu rëy foofee ca biir réew ma dañ ci ñëwaat ak yéen ci yaatal fële su ñu neen jotaayu ka xibaar laataalalu mbokk yi ñu àddu jëmale ca boru Tchad foofa seetlu nañ nag ne ab lakk bu métti la ñu fa daldi gis ci talaata gi ci ab dépôt militaire boo xam ne yoroon na nag ay munitions bu ñu koy xayma. bokk na ci nag ay détonation yu am solo yoo xam ne daal dégg nañu ko fa euh, ca abir dépôt ba ginnaaw nag bu ñu sukkandikoo jamono ji daal ca la gouvernement bi daal di wax bi euh, tàkk-tàkk nag moom daanaka sax la ko waral kenn xamu ko bokk na ci nag ñoo xam ne jot nañu cee ñàkk seen bakkan ñeneen ca jot caa jëlee ay gaañu ci jamono jooju ñu gis tamit ne Vladimir Poutine moom nag yegsi na ak euh, tardement sax bu rëy foofe ca biir Corée du Nord foofa nga xam ne daal daanaka jot nañu ko dalal ci ab comité bu ndaw boo xam ne Kim Jong Un moom moo ko taxawaloon ginnaaw nag ab cérémonie boo xam ne amaloon nañ ko ca place su Pyongyang bu ñu koy xayma ñoom ñaari njiitu réew yi daal waxtaan nañu te bu ñu koy gis sax. jamono ji ab partenariat la maanaam ab déggoo boo xam ne daañu ko xaatim ci diggante ñaar réew yi ab document bu yees la rek bu am solo boo xam ne daal dana dellusiwaat ci lépp lu leen raxale ñoom ñaar ñooñe ba noone ñuy xaatim yëf ya bu ñu sukkandikoo ca Moscou bokk na ci tam beneen ab déggoo boo xam ne ab partenariat stratégique global la boo xam ne daal jot nañu ko xaatim loole fas yéene tamit dellusiwaat ci lépp loo xam ne moom moo jëm lay xew-xew ci àdduna wërngal këpp Ah, ci bile ponk la ñuy jaar yëkkati bile jotaay xibaar cant ak ngërëm ñel leen bu baax a baax Aïcha xibaar yi buur la waaw ñu jaajëfal bu baax a baax xibaar yi am na solo ah, di joxante dig daje ba ëllëg incha allah. ci yeneen ah, jotaay lay doon Aïcha. jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi bu ko defee ngeen des ak ñun léegi léegi dañuy daal di wëyal ak li nga xamante ni moo di la revue web ñu ànd ceeg Kajoor Cissé.